Morgan. Morgan. Morgan. Lekkete yoo Morgan. Dëgg Morgan, Morgan. Fagu. Morgan faju. Morgan Fajo. Wow, ni Morgan gan Morgan Mo gan Fajo. Damani moo gën faju waaw ni fago gën faju Sénégal am nañu gan gan gi da gën rey Sénégal am nañu gan gan gi da gën rey Sénégal am nañu gan gan gi da gën a rey nopp du ko dégg te bët sax du ko gis ah, ayo jërëjëf waay bàyyi ni fagaru ah, waaw waaw rax su leen bu baax de waaw feebar bi moom moytu rek su sunu marché bi ñu tam sonn noonu torop

Morgan fayo, Wow, ni fago gen fayo, Morgan fayo, faju dama distansi, fago gën minimum Morgan gën a wóor salaama waa giru doomu baay ak sama <laughs> doomu baay yow ni ma ah, eh, eh, eh <laughs> dama xaw a yàqamti ndax dama am ay gan jox ma potu café. potu café waaw. Ah, spaghetti bi. spaghetti bi. ak potu tamaate. jeeg moom dañuy xam ni jeeg la. joxaale ma suukar. jeeg nii lay mel. bàyyil yooyu nag. yow. <laughs> bëgg boppam di koy wane dama ko fàtte woon yow jox ma yow xam nga ne sama gan yi dañoo bëgg attaaye. attaaye rek jeeg day jonge sama doom baay koo gëj a gis gëjëre xam li muy def kon bàyyeegoo ba léegi man la yow tey daal nga gën a neex yow de moom <laughs> du ma la mës a baax xam nga nag doon war a taqale affaire yi nag daa la wax li léegi rek eh, léegi rek nag du yàgg ah, ni nga bëggee lu neex yow ah. man mi ah lu neex ku ko bañ doo changé waaw teel ma nii yow tamit tegal ma bàyyi ca ah yow nag da nga bare da nga bare ay feem trop nga naan ma tegal ma doom bàyyi gants yi ñaata waxtu la nekk sa loxo yi. gants yi dem ba léegi moom laa sol. su ma wàccee tàngal sama ndox ba mu tàng def sama eau de javel fóot ko ba mu set teg fële su ma yeewoo suba solaat ko aar sama bopp aar leen aar marchandise yi may jaay. doom baay nag yow aaroo ñu de. Ah. ndax gis nga sa gants yi daf ñuy lor xam nga loolu bu baax. xanaa yow doo seetaan télé télé waa aw ma jotam maa ngi si liggéey bi rek waa léegi nag ñun ñu seetaan télé ñun ñoo lay wax li xew ci dëkk bi gis nga sa gars yi médecins yi nee nañ jàngoro ji daf ciy dox te jàngoro ji gis nga xaalis bi lay jox daf ciy ne sa njaay bii daf ciy nekk yëre yi nga solit daf ciy topp kon donc jàngoro bi dina yegg foofu yëpp moo yow moo tax man la yow mi yëgoo li xew ci dëkk bi gis nga sa gants yi laa bëgg nga simmil ma ko ba mu set déedéet du noonu nga koy simmee de teel ni xëccal waaw léegi bul génn jëla beneen côté bi xëccal ma waaw kañ nag noonu la jëla ma sa ba bale may seen nga jël ko dajaleel ma sa gants yi nga dem yóbbul ma ko ci poubelle bi <laughs> eh, eh doom baay eh, li moo tax man nga ba yow di nga jógee. dama ni comme xamoo dinaa la xamal te xam nga lu ma bëgg bis ni ki tey nga jël sa siwo ak sa saabu jël sa eau nga def ci chaque minute ngay raxas sa loxo su ko demee ba mënoo ko nag nga jël sa gel nga teg ko fi képp koo jaay nga jël ko laal ko sa loxo di nga aar sa bopp aar ñu aar sa njaay mi. kontaan naa si yow loolu laay dama ni bis ni tey nag bul ko mës a bàyyi. ndax feebar bi raamul de day daw bàyyi ci xel de. jërëjëf. man sax am na lu ma fàtte. gis nga sa masque bi chaque deux heures de temps bu ne. na nga koy changé maa ngi àgg kër gi moo gën